Mesdames et messieurs, bonjour. Avec le rappel à du général Mamadou Niang et celui du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, le Sénégal perd de grands hommes. Dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que le général Mamadou le président de la commission politique du dialogue national, ancien ministre de l'Intérieur, s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Et pour nos confrères du quotidien Le Soleil, le Sénégal perd son soldat du consensus. Idrissa Diallo aussi a de ses administrés pays de Taxawu Sénégal et c'est hier qu'il a rendu l'âme des suites de la maladie du covid nous disent nos confrères du journal Les Échos. Ce qui fait dire à nos confrères de l'I Quotidien qu'avec le décès de plusieurs personnalités emportées euh, par la covid peut être considéré comme une année maudite. Nos confrères du quotidien Le Témoin s'arrêtent aussi sur ces personnalités qui nous ont quittés, soit emportés par la Covid-19 ou de morts naturelles. Et pour le quotidien Le Témoin, 2020 est une année macabre pour les hauts d'en haut. Le secrétaire général du ministère de l'économie, Pierre Niaye, lui aussi fauché par la Covid-19. Mais aujourd'hui, nos confrères de Direct News nous indiquent qu'il y a eu beaucoup de manquements concernant son hospitalisation. Et aujourd'hui, nos confrères nous livrent la vérité des faits. En fait, il est écrit dans le journal Direct News manque de gaz à l'hôpital son état de santé et on a mis beaucoup de temps pour l'évacuer à l'hôpital principal. Pour nos confrères, une enquête doit être menée pour situer les responsabilités. Parlons à présent de la crise qui est en passe de miner le parti Rewmi d'Idrissa Seck suite au limogeage du député Déthié de son poste de vice-président et de numéro du parti. Et selon nos confrères, cette crise remet au goût du jour les remous politiques qui ont fini de plomber l'unité Sénégal. En effet, démis de ses fonctions de vice-président du parti par son président Idrissa Seck suite à ses critiques contre le régime du président Sall, Déthié Fall a refusé le poste de secrétaire national chargé du développement industriel, un poste que son chef de parti lui proposait. Et de sorte qu'entre Idrissa Seck, président du dit parti et nouveau patron du Conseil économique, social et environnemental, et Déthié son ancien numéro un bras de fer ouvert économique pense dans le journal Sud Quotidien que Détiéfal est aujourd'hui victime de pratiques quasiment autocratiques et autoritaires d'Idrissa Seck. Les députés ont adopté hier en plénière la loi portant loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des euh, territoires. Et à cette occasion, nos confrères du journal Les Échos nous indiquent que le débat sur la suppression des villes a été agité par les députés. Grand défenseur de cette théorie, a réitéré dispositions réglementaires du Code général des collectivités territoriales pour motiver cette suppression. Et il faut dire que le débat sur la suppression annoncée des cinq villes du Sénégal s'est invité à la consécration euh, du meilleur maire du département de Pikine. Abdoulaye le maire de qui a décroché le Graal, est d'avis que les maires doivent être associés. Et donc, après son sacre, Abdoulaye Obama est revenu sur l'acte de la décentralisation qui a permis sinistrés. Toutefois, pour la question des villes qui fait débat, il préconise la démarche inclusive par l'implication des maires. Et notons avec nos confrères du quotidien Le Témoin donc que c'est le maire de Mbao Abdoulaye Pouy qui a été élu meilleur maire des 16 communes du département de Pikine. Nos confrères du journal Tribune nous précisent que c'était lors d'une compétition organisée par la structure en direct de euh, Pikine et pour cette édition, le choix a de Mbao Diarra a dédié son trophée à notre défunt confrère Mamadou Ndiaye Dos. Terminons par le sport Prime League 16 journée. Chelsea a été tenu en échec par Aston Villa hier lundi, augmentant la pression sur son entraîneur Frank Lampard alors que la Covid-19 a provoqué le report du choc de Prime League entre Manchester City et Everton. En lutte, nos confrères du journal Sunulamb nous indiquent que selon Aziz agent du Lion de Guédiawaye, Balaguer numéro est prêt huis clos. C'est donc dire que Aziz Ndiaye veut coûte que coûte éviter que son poulain chôme et pour atteindre cet objectif, l'homme d'affaires s'engage corps et âme à trouver des sponsors au promoteur Gaston Meng pour l'aider à tenir ses engagements. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm ak génnum àddina général Mamadou ak maire bu Dalifort bi di Idrissa Sénégal daal dinay ñàkk ñaari kàngam yoo ne ku sa xeex ngir fexe ba jëmale réew mi kanam autolikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne général Mamadou Niang démb la daal di doddu àddina moom mi nga xam ne moom moo jiite commission politique bu dialogue national nekkoon fi joriñ gu ñu dénk wàllu karange réew mi général Mamadou Niang démb ci ngoon la daal di làqu ci biir autolikaay bii di Le Soleil ne réewum Sénégal daal di ne ñàkk ab soldat boo xam ne nag yàgg naa xeex ngir fexe ba juboo am fii nga xam ne nag moom mooy ci biir réew mi sa Diallo moom it autolikaay bii di Le Soleil daal di ne gis ne màgg ko xam ne nag ku am conviction la moom it daal dinay dëddu àddina autolikaay bi di les échos ne ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy général ña nekkoon nag ab militaire bu ñu ràññee koo xam ne moom dialogue nekkoon na lu ko yitteel ak Idrissa Diallo koo xam ne tamit ku xarañ la ñaar ñooñu ñëpp nag mbas bi di covid 19 moom moo leen a yóbbu loolu sama moo tax boo coolikaay bi di li quotidien daal di gis ne càttum 2020 ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan te mbas bi yóbbu leen bëri nañu coolikaay bi di le quotidien ne atum 2020 kay kenn du ko fàtte ndaxte ci at boobu daal dinañ ci nemmeeku ne ñu màgg daal dinañu fiy jógee audiolikaay bii di direct news du ñu fàttali tamit ne secrétaire général bu ministère de l'économie di Pierre Ndiaye moom it mbas bi di covid 19 moom moo ko yóbbu wante audiolikaay bi di direct news daal dina xamle ne moom moom di Pierre Ndiaye ba ñu ko daal di hospitalisé nag fa li nga xam ne moom mooy ca hôpital bu CTO foofu ñàkkum gaz ga am ca hôpital ga nag moom moo tax daal ba wér gi yaramam gënoon na xajam ndax dool dolli laata nag ñu koy yóbbu ca hôpital principal temps bu bëri loolu sax moom moo tax ba coolikaay bii di direct news gis nag ne war nañoo ubbi ab l'enquête xool ku ci nekk lan mooy responsabilité am coolikaay bii di Sud Quotidien tey jii nag di ñëwaat yenn ci ay xiroo ki ngaayo yoo xam ne ñoo ngi koy nemmeeku ci parti yu mag yi nga xam ne nag moom moo nekk fii ci biir réew mi ñu daal di gis nag ne la xew fu mu nekk nii ci parti bii di réew mi xewoon na nag ci parti yu mag yu mel ni parti socialiste AFP ak tamit parti démocratique sénégalais ndaxte coolikaay bii di Sud Quotidien la mu gis moom mooy ne ci biir parti bii di réew am na nag mbicoog mbaalo goo xam ne daal am na ci diggante que ko jiite di Idrissa Seck ak ko ñu toftaloon ci ginnaawam di Déthié Fall te léegi sax nekkatu ko ndaxte kii di Déthié Fall moom daal dinañu koy jëlee ca poste ga ñu ko fa tegoon ginnaaw ay yu mu fësal jëmale ko nag kii di Macky Sall kàddu yu neexul woon dara waay ki nga xam ne nag moom mooy Idrissa Seck loolu moom moo tax ñu daal di ko fay jëlee ba ñu ko joxee poste secrétaire national chargé du développement industriel kii nga xam ne nag moom mooy Déthié Fall dafa lànk carré ne xalaatu sax di taxaw

Touba te mu wundu wàllu aménagement et développement durable des territoires ci wàll gi ni mel julikaay bi di Les Échos mi ngi ñu xamal ne waxtaan yi sax gënoon nañu ko jëmale nag ci neenal ga ñu bëgg a neenal nag li tolloog juróomi ville fii ci biir Sénégal te ki nga xam ne nag moom mooy jëwriñ gi di Oumar Gueye moom daal di ne xam ne ni ni mel tey jii nag lañ ciy gën a taxaw ndaxte gisuñu nag ban njëriñ la ville am nag fi mu nekk nii wante dafa mel ni nag ne maire bu diwaanu di Abdoulaye Pouye ne su fekkente ne nag dem nañu bay waxtaanee ci ay affaire ville faw nag ñu daal di ci euh, boole ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jiite ville yi moom moom di Abdoulaye Pouy Obama autolikay bii di 24 heures mi ngi ñee xamal ne mi ngi yëkkati kàddu yi ni mel ginnaaw ba ñu ko daal di jébbalee ab raaya xam ne gañe na ko ci ab jongante gañ doon amal foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu euh, Pikine autolikay bii di la témoin mi ngi ñee xamal ne jongante boobu kuréel bii di en direct de Pikine moom moo ko amale woon fukk ak juróom-benni maire yi bokk ci diwaanu Pikine ñoom ñoo ko seqoon te dañ doon xool nag ci diggante maire yooyu kan moo ci eh, gën a ràññeeku te mujjantal ga nag jébal nañu raaya bi ki nga xam ne nag moom mooy Abdoulaye Pouy nekk maire bu diwaanu Mbaaw moom moomu sax ba ñu ko jébalee raayo boobu daal di ne xamle ne moom it moo ngi koy jagleel ki nga xam ne nag moom mooy suñu nataangoo te mu génn àddina di moom du Ndiaye Doss jeexalee ko ak wàllu lamba ga colikaay bii di suñu lamb di ñu xamal ne kii di Aziz Ndiaye moom nag pare na ngir fexe ba Balla Gaye numéro 2 saison de lutte bi moom du chômer loolu sax tax xamle ci biir culikaay bii di sunu lamb ne dina def kéem te lay kàttanam nag ba utal kii di Gaston Meng ay sponsor ngir mu war a mën a fexe ba tëggal ki nga xam ne nag moom mooy Balla Gaye numéro 2 ab combat nee na combat boobu sax su fekkente ne kenn du ko ñëw seetaan maanaam li ñuy tuddee huis clos nee na Balla Gaye numéro 2 loolu jaral na ko ko ndaxte moom la mu bëgg rek moom mooy bëre daal di wane ay mëninam lii moo nekkoon bu dirkat ci li a fës si biir culikaay yii ñu